ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark x ak ñoo dëgër te méngoo jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre euh, sëriñ bi kon gannaaw kàddu sëñ Habib yooyu mu ne gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee mi ngi nuyu mi ngi nuyu Serigne Cheikh Ahmed Tijani Cissé nee di ko ziyaara di nuyit njaboot gi nga xam ni ñoom la fi fekk ñëpp nee na njaboot gi mooy ba Madina gépp nag bàyyiwul kenn wala boog bokki jullit yëpp bàyyiwul kenn ndax Madina nag du cité boo xam ne dañ ko samp ci plaisir wala ci bànneex nee Madina ëtt wala bu ñu bu ñu fàkkal yàlla la ay nitu yàlla dëkke ko nit dina digaaleeg yàlla te xam ni te sax du te umpule ni yàlla digaale na ak moom waaye amul kenn ku yàlla bind te amul lu mu joteeg yow amul lu mu joteeg yow nee na loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax ni alxalqu kulluhum ciyaalullah alxalqu kulluhum ciyaalullah ciyaalullah nee na kon nag nit képp ku ko jaboote ak nu nu mu mën a mel moom nit ka ka ko jaboote bàyyi na ko xel nee na ñu ñëw fi nag ñëw goo xam ni gii bëggoon nañu ak ñëw gu ko jiitu bëggoon nañu it geneenuk ñëw gu bokkul ak gii ñu ñëw nii neena na gii ñëw gii dañoo ñëw jaale si nee na jaale si wuñu kenn nag suñu bopp rek la jaale si ndax ndax nee na wax na ko léegi diggante Mawlana Cheikh Hadj Abdullahi Niass radiyallahu anhu ak diggante Maulana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu an nee na ñooñu ñoo jamondoonte liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla nangu it ni nangu it ni nag lu addina yaatu yaatu lu addina yaatu yaatu yaatu lenn lañu lenn lañu ci am ñun moy doxal service yàlla ndax yàlla nag moo leen ko waxal boppam ni man kat li ma bind bari na li ma bind ci ngeen bokk ma bind nag ci ngeen bokk yéen waaye li tax ma bind waaye nag li tax nag ma bind leen du ngeen tëdd di nelaw du ne du bind leen ngeen tëdd di nelaw dama bëgg sama tool sama tool bii ma fàkk ngeen di ci xëy te bañ a wàcc nee na loolu mooy li alquran di wax ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun nee na waaye itam mu tekke ni wacbud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqiin nee na kon nit ci addunaam mën na cee am noflaay mën na cee amit congé waaye wàllu yàlla liggéey ba dee. liggéey ba dee rek. mag nee na mag ñooñee nag. fa mu jafee. fa mu jafee woon. nga xam ni nga xam ni booba dund yombul. dem yombul. demit yombul. ñu fexe ba seeni xol. ñu fexe ñoom ba seeni xol. di laalante ñoom. te loola. loola. la dox diggante ak mooy la dox seen diggante ak seen boroom loolee nee na loolee kat la dundal. ba seen xol ya dund ca. ba ca. ñu ne nee na ñu ne ca. ci jafe-jafe. ci jafe nag. waaye. waaye. mu itteel leen. lool nag. lañ doon ba ba la ñu doon def nam leen ko doon defloo kaleen ko doon defloo di ku kenn mënu jaar fenn ku kenn mënu jaar fenn ku def li mu bëgg képp ku def lu mu bëgg rek xam na ko xam na ko moom yàlla mu nangul suñu ñaari maam yooyu mu tudd nee na mu nangul leen ñoom ñaar ak yeneen nag yeneen gaayu yàlla yi ñu bokkal dëkk bi réew mi wala adduna bi yàlla nangul nee na ñu seeni liggéey barkeel ba buuxante bi xew léegi seen barke liggéey la nit ñi ëppaluñu nit ñi ëppaluñu seen pas mos pas moo toll foofu ñu xër nag fas yéene sonnal yàlla boo mënula àgg ca yàlla seetal ku yàlla def waayam. seetal ku yàlla waayoo. defar ko nga sonn ca kooka. nee na bu boobaa. lu mu am ca lépp lu am moom moomee ca yàlla ëllëg. ci mosal. loola dana la ca dana la ca mosal yow. lenn rek. lenn mooy fexe ba sellal. mooy fexe ba te bañ a wóolu nag pexem yàlla gëm ko gëm yàlla te bañ a def def le te ngëm ga fa tabaarakallaahu gannaaw yàlla nag gannaaw yàlla nag kenn nekku fi ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa bu fekkee ne am na ñu fi nekk. bu fekkee ne am na ñu fi nekk. ñun Cheikh na Ahmed Tijani moo ci suñu cër. ñun anhum moo ci suñu cër. moom la ñu yàlla sédde. kuy sedd sa bopp nag. kuy ak ku ñuy sedd ak du benn du ku ñuy sedd ku ñuy sédd. ki lay sédd. bu la sutura ak teraanga. bu la yéenee sutura ak teraanga. dana la jox loo xam ni. dana boo doon sedd sa bopp. boo doon sedd seddoo te cër bu toll ni Cheikh Ahmed nag bu toll ni Cheikh Ahmed Tidiane yi an. yomb la am. nee am de. yomb am yomb mbokk mu nekkoon Tiwaawan. dafa am benn mbokk mu nekkoon tiwawan nekk nee na yàlla def ko nag muy waxkat. muy wër. na muy wër. ba dem ci benn kilifa. ba ni ko man day tuyaawan laa jóge. taalibe tiijaan laa. waaye nangam mooy sama liggéey. nee na may gëstu nag. nee kilifa ga ni ko waaye dandu ñëwal fii ba ci sama wet nee na mu ñëw ba dandu si ba jege ko toog ci wetam mu ni ko yow nga foo jóge mu ni ko man Tiwaawan laa jóge mu ni ko yow nga ni taalibe lan nga mu ni ko taalibe Cheikh na Ahmed Tijani laa nee na góor ga njatt ko ni ko yow waa ndax da nga fee gis leneen lu dul Cheikh Cheikh rek fi nee na Cheikh rek a fi ne. ngeen di ko wax ca kaw. ngeen di ko wax ca kaw. ñun ñu di ko wax ci suuf rek. nee na dong loolu rek fi ne de. li ci metti nag. li ci metti nag. mooy yéen miin ngeen ko. mooy nag yéen da ngeen a xaw a miin Cheikh. jagale ko seen bopp. jagale ko jaglele ko seen bopp it. ba lii xaqam ci yéen. ba lii xaqam sax ci yéen. joxu leen ko ko ñun nag. ñu sàcc ko di ko nëbbu. ñu sàcc ko di ko nëbbu. ba doxee ca fonk ko. ba doxe ca fonk ko. di ci faj aajo ju ngeen mënul. ci faj aajo ñun ju ngeen mënul a faj yéen ñi koy woote. ci salaatul fatihi ci salaatul fatihi. yàlla def euh, mag ñi. nee na yàlla def mag ñi. yàllaa leen booleel boppam. yàllaa leen booleel boppam. na léegi. fii Medina jamono yi fii suñu maam Ibrahima Niass nekkee nee na jamono yooyu daan na fi ñëw nee na Cheikh Hassan Cissé rahmatullahi alayhi wa radiya an nee na moom xaritam la woon wëllëreem la woon ah Cissé bu mag ngi nii Cissé wallahi Cissé alhamdulilah nee na wëllëreem la woon xaritam la woon nee na moom moom moom moom ak Cheikh Makki Niass ak Cheikh Mamoun ak Serigne Hadi nee ñoom ñi daaw ñu tàqalikoo xasan soppoon ma nee na xasad nag boo defoon ko soppeem nag lool. fa tabaarakallahu muy lu yàgg. nee na muy lu yàgg nag. Cheikh Ibrahim nag. nee na Cheikh Ibrahim nag. radiyallahu taala anhu. daawul jaar ci sama nee na moom demoon naag moom ba dootul jaarati sax ciw turam. sama doom rek la ma daan wooyee. sama doom rek la ma daan wooyee. bu masaan nee na bu masaan tukki. bu ñu dajee. bu ñu dajee. daf may yónnee ndaw. nee na daf may yónnee ndaw. ni sama doom ñëw naa. ne ko ndaw la mu yónni ca moom ni ko neel sama doom ñëw naa. ma na ma daal di ñëw ma ni fekk si ko. waxtaan ak moom. waxtaan ak moom. waaye bu ñu nit raxee. bu ñu toogee tuuti. bu toogee tuuti. may leen ma nag. leen may leen ma nag. ma ma waxtaan ak sama doom.